étudiante bi di faatu calaw dégg ngeen ay témoignages jëmale ci way dawlaax bi ki ñu toog nag dafa dëkkoon ak moom moom lañuy tàllal micro rek mu wax ñu kan moo nekkoon Fatou sang bi ñu ngi lay nuyu bu baax. Euh, ñu ngi lay fay seen bi euh, man maa ngi tudd Moussa Faye hmm, maa Fatou Diallo du fii rek moo ñu boole ba ñu dalee xamante war na def plus de ay dix ans onze ans presque parce depuis sixième ba terminal ñoo ko doon bokk classe euh, Koungheul xam nga rëyul donc euh, mun naa ne presque ñëpp benn famille la Fathia bone nee Fathia euh, fii nii koñ bi fii def na fi presque ay deux ans je pense fii nii ñu bëri xamuñ ko sax parce que du génn Fathia jàngi ñëw fii si kër gi boo nee buñ buñ bu ma ko doon bu ma ko doon wax tout le temps naan ko yow yow Fatou yow jàng rek ngay def affaire yooyu noonu dañuy ñun dañuy yeew ñun heure bu ñuy yeew pour sangu moo fekk na ne moom mi ngi génn di jàng wala parfois duñ ko duñ ko sax dañuy fekk moom dem na. Mm-hmm. tellement dafa dafa dafa gëmoon jàng bi dafa gëmoon jàng bi gëm diine parce que ku xam seen famille ku xam papaam xam ay magu papaam dina xam ne dina xam ne Fatou Thioro maanaam. gëm diine bii nii nii nii du par exemple lu ko dab dafa nekk loo xamante ni si c'est dans la source en fait noonu la foofu la juddoo yaroo fa si diine ak yaru euh, déjà ñu fa jotoon dem sax nii nii ñoo xam ne xamuñ ko ngeen xamuñ ko demee gis neen euh, ñooñu déjà nañuy waxee déjà sax dafay am euh, respect bu muy inspiré parce que dañoo jàng tellement macha allah. dañoo jàng eh, moom julli jàng fonk ay waajuram dañ doon ñëw classe moyenne bu xawee ndaw sax tuuti nii moom moo doon mën naa ne maam si rare fii yuy jooy si classe bi lay bokk day jooy jooy yu métti su ma ñëwee ko yow calo yow la moo tax la luy jooy nii da nga tiit affaire yooyu nu quoi wax yu ñuy wax nii wallahi azim laay wax nii de danaan ma su ma demee lan laay wax sama papa. séeréer loolu la may wax te loolu ay temps collège daa lay wax nii de. Mm-hmm. noonu la kon ne ba fii may wax am na benn matière boo noonu la woon prof bi dafa xawoon jum si note mi mu nekk fii di jooy ba ma naan ko fii nangam nangam mu ne ma lan laay wax sama papa. essence mm-hmm. yi nii fekkoon foofu laa nekk sax moom dina xam ne maa ngi si yenn kii mais bu dee maa ngi fii mm-hmm. danaa nekku nekkuma ak moom kon ay dana mën mën nañ mën na xalaatee neneen naan jàngu ma dama fi nekkee leneen dama tegg yoon wala affaire yoon noonu maanaam juste pour wax ne euh, moom nit ku baax la nit ku baax la woon sincèrement nit baax la woon bugg doon sonal kenn bugg doon sonal kenn parfois dañ koy mën nañ ko balaam parce que dañ naan moom du du wax par exemple sax lu koy métti pour buggul sonal kenn bu amee lu ko métti da ngay ñëw di wax ak moom dalay ree man il faut ngay forcer forcer forcer sama genre di ko forcer forcer ba mu wax la som mais si lay yam dangay ngay pare sax bëgg ko wax ay solution wala affaire yooyu noonu mu naan la non man garaawul quoi bëgguma sonal kenn garaawul papaam yaayam magam jigéen ak rakkam ñoom rek ngay dégg sama papa sama papa sama papa sama papa en tout cas loolu daal loolu daal lañ mënoon bu doon résumé daal loolu daal rek lañ lañ mën a wax. loo eh, information bi génn ak hmm. def ci euh, bi ñun ñoo ko joxe. Hmm. information bi maanaam yëgee wuñ ko feneen c'était en direct. Hmm. parce que ñun ñoo déglu fii man mii di wax ak yoon yi man maay kii annoncé papaam man maa woo papaam waxoo Euh, dañoo ñëw di fëgg buntam parce que gars yi dañ doon inquiété wu fi kër gi ngeen demoon ñoom day amee ñooñu dañ doon inquiété wu ñëw fi parce que ñun dañoo tàmm que moom day rek. Mm-hmm. day tëju rek donc mënoon nañ toog journée bi yëpp duñ ko gis duñ ko gis donc dañoo jàppoon comme jour normal la rek ñu ñëw ba ay 16 heures man fëggoon naa ko avant sax mais dama ne comme que daa guddee tëdd moom guddi gi lay jàng bëccëg mun na law temps yi dafa tëj. ñu ne bon comme que daa guddee tëdd euh, mooy loolu daal dafay dafay dafay kii dafay yéex a yeew ñu fëgg fëgg ba sonn après ñëw daaji daaji bunt bi daaji fenêtre fenêtre bi lañ commencé sax daaji xool ko gis ko mu tëdd noonu ñu ne a ah, kii la muy nalaw ni affaire yooyu noonu ba léegi ma boobu maa ngi koy tooñ. may naa ko yow loolu yow da ngaa mën nalaw ñu ne li ñu woote yëpp après ba tey tontuwul gars yi nag si leen si leen bunt bi. après ko fekk noonu quoi état boobu noonu fekk bon c'était c'était trop tard c'était def na ma choc ba am na si kër gi ñoo xamante ne nekkuñ fi dañoo dem Dakar ñii nekkul ñii dañ fay jugee dem campus parce que choc bi maanaam da ngay romb da dañuy romb néeg bi nii sax affaire yi defleen def leen kaa man nii nii nii da damay efforcé wu pour pour kii parce que genre kër gi yëpp mënuñoo mënuñoo effondré wu. il faut mu am koo xamante ni moom mooy remonter moral ñeneen ñi. loolu moo taxoon l'autre toujours ñii reculer ñi def nii fallait que kenn kenn euh, garder sang-froid am pour def yooyu noonu yëpp. te man maa ngi naan maanaam man la war a doon quoi parce que kër gi mun naa ne man maa ko gënoon xam en maa ko gënoon xam parce que ku def ay presque diis ans onze ans ak euh, d'amitié ak ak nit mun naa ne moindre des choses mooy nga taxaw ko waaw bon def nañu soog nag sincèrement soog soog choc bu garaaw bu garaaw surtout papaam tamit bon mooy loolu daal waaw na trop waaye nag euh, dañuy ndongu dogalu yàlla suñu borom ndax moom moo ñu ko joxoon moo ko jël si waat kàddu gi benn la li sang bi wax loolu la président wax loolu ki ne wax itam alors yow dund ngeen loo xam ne itam je pense que doo ko fàtte mu ko ci àddina mhm. tout à fait. Mhm. bon tout d'abord dama leen di wax man maa wuyoo turu Yoro Diaw. Mhm. Calaw bu ma ko xamee c'est à cause de Moussa Faye mi toog quoi sincèrement pour dire vrai. Mhm. ndax nekkoon na nit koo xamante ne nit ku am diine la ku yaru jox ñëpp cër buggul kenn mer. te bu may waxaat loolu sax ndax l'essentiel a été dit ndax daanaka wax nañ quoi loo xamante ne moom noonu la menoon ndax bu fekkoon kenn nit moo ko wax ñëpp mën nañ ko témoignal que nii kii nu mu mel du loo xamante ne dafa doonoon loo xamante ne tricherie la wala affaire de faux semblant simulacre mais dafa doon loo xamante ne lu authentique la woon si moom lu authenticité la si moom lu nekkoon si moom loo xamante ne moom noonu la mel de nature quoi mhm. man ba mu ko xamee c'est à de kii nii ndax man je fréquente souvent cette maison tout le temps dama fay dem à cause de sama copain yi nii mais ba ma demee tamit fasaluma kanam tëjaluma kanam daf ma jàppee comme ñii mhm. wanuma benn yoon benn ñàkk fayda bu nekk si moom wala genre yenn truc yoo xam te ne mooy loolu toujours même facet la may wan maanaam boo ñëwee jox na la cër teg na la fu mu la war a teg respecté na la et tout man bu ma ñëwee daanaka boo ma xoolee sax da nga naan comme si man kii xam naa ko depuis ça fait des années te ba ko xamee presque deux ans ak ay kii la rek waaw fii dañ xamante université moo ñu boole mais moo ko xamee si à cause de Moussa waaw nu ma mën a témoigner mooy ku ku yaatu woon la quoi ku mm-hmm. baax. Mm-hmm. waaw ku ñàkk ki ñaan quoi ku jullite aussi waaw. jullit piir moo dem taalibe piir waaye ku fonk ay waajuram comme ni ko président waxee moom itam ñu ngi ko koy jaal bu baax ndax euh, moo ñu yombalal lii yëpp ñu ko koy jaal bu baax di ko jaal famem ay waajuram dégg nga ni mu wax papaam euh, jooyul benn yoon. prési ci yow lañuy ñuy jeexale rek euh, témoignage yi nga xam ne doon nañ ko def ci faatu di ko ñaan laat bu baax yàlla yërëm ko te xaare ko aljanna waaw di di di rafetlu vraiment seen seen déplacement bi ngeen def ñu ngi leen di masawu coono waaw di ko jaal ñëpp ndaxte soxna faatu moom mën naa wax ne tey képp koo ko jaal rek war nga koo mën a jaal parce que parce que nit la woon koo xamante ni au delà de tout sénégalais la woon. te amoon na te yàqeem ambition bi nga xamante ni moom la amoon mooy tey bokkoon ci ñi nga xam ne ñooy tabax réew mi parce que ndaw su tolloo ci jàng nangoo jàng mu jaral ko lépp rek lii wane mooy que ni kii xam na li koy xaar te li ko doon xaar bokk na ci ñi nga xamante ni mu bokk ci ndaw ñi nga xamante ni ñooy tabax réew mi. depuis loolu nag kàddu gi benn la kàddu gi benn la bañ demee Koungheul ñi bokk ak moom classe ñi amoon ñi xaritoo ak moom daanaka ni ñi nga xam soo yoree ay contacts yu bëri ñu ko xam ay estati da ngay da jooy man keroog toog naa police mën naa wax ne première fois maa ngi door a jooy nit ku dee. parce que estati yi nga xamante ni moom laa doon lire témoignage beau témoignage yi ñu doon def ci moom man man moom keroog bi may jooy sax xaw ma ne li xaw ma lu ma jooyloo donc nit la koo xamante ni nit ku nit ku baax la te comme ni Moussa wax du du loo xamante ni daf koo daf koo dab. mais euh, yax ba mu bokk fa la famille ba mu bokk fa la parce que tey si tey famille nit moom comme ni ñuy wax kéwél du tëb doom ja bët te yaakaar naa ay waajuram ay jullit leen ay waajuram nit ñu fonk seen bopp la parce que man mii di wax ak yow euh, moom seeni waa ay waajuram xaw ma ko mais xam naa koo xam ne bu ma ko ko expliquer daf ne ma papaam bokk na ci ñi nga xamante ni dañ leen a gën a jox cër fële ci Koungheul loolu mooy lan fullaam faydaam julliteem ak nangoo liggéeyam moom moo ko ko may en tout cas nit ku baax la woon nit ku bëggoon jàng donc ñi koy ñaanal borom bi subhaanahu wa taala allah azza wa jal mu yërëm ko atte ko ci yërmandeem jéggal ko bépp rëq-rëq boo xamante ni defoon nga te am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax nag am nañ ci moom yaakaar parce que dafa doon nit koo xamante ni ñëpp témoigné neen ci moom lu baax te yaakaar naa ne témoignage yu baax yooyu du nax saa yàlla dina ko prendre en compte te au delà de tout it heure bi mu dem comme gis dégg ñun ñëpp xam ne liñ ci wax guddig alxames jàpp aljuma donc dafa doon loo xamante ni dal na xel te yàlla bu yaakaar tas ñu ngi koy ñaanal daal vraiment jàmm di di masawu coono ñëpp nag di di remercier ñëpp ñëpp ñoo xamante ni depuis bés bi mu ne amee ba léegi vraiment ñu ngi compatir ak ñun di ñu ci jàppale def neen ñu ci waroon a def yëpp jogee neen Bambey fii étudiants yi dem ba Koungheul pour taxawu ko te ku xam ku Koungheul xam ne nekkul fii yëpp daanaka ni plus de deux cent nangam kilomètres da nga koy daw pour mën a yegg Koungheul mais bi ñu koy enterré ñëpp dañoo waxoon ne enterrement ba dañ koy fekkee donc lu mu guddi guddi dem neen ñëwaat donc daal pour le moment ñi koy ñaanal euh, yàlla quand même yàlla ñi koy ñaanal yàlla tabal ko aljana ci barki yonent ci barki barke alxuraan en tout cas yàlla na yàlla na yàlla na fi géej yàlla na fi géej comme lu mëntu ñàkk la moom yàlla na fi géej mais daal en tout cas moom ñàkk neen Sénégal ñàkk na communauté étudiante ñàkk na enseignement supérieur ñàkk na ñëpp ñàkk Sénégal ñëpp a ñàkk parce que dafa doonoon doom joo xamante ni amoon nañ ci moom yaakaar yaakaar goox yaakaar gu mat sëkk gu mat sëkk parce que tey dañoo toll ci jamono boo xamante ni ambition yombul. rawatina jigéen goo xamante ni accepté na def déplacement am Koungheul ñëw Bambey te bi mu ñëwee fii nii li ko fi indi woon wallaay laxasim du du pour def def éloge ci ginnaawam mais mos amul lenn loo xamante ni daf mos na mos na cee détourné ku xam SRT xam formation bi mu nekkoon. mu nekk formation bu bu bu am bëri ay débouché mais nekkit formation bu métti boo xamante ni boo dul ñafe. pour nga jógee fa du yomb mais yaakaar naa première année deuxième année ba ni mu nekkee troisième année nii reprendrewul benn yoon classe toujours bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy valider en tout cas def na fi ay résultats marqué na. l'histoire de l'université de Bambey par ses résultats spectaculaires donc ñu ngi koy ñaanal jàmm ñu ngi koy ñaanal fa mu nekk gënal ko fi nga xamante ni moom la jógee en tout cas il nous a laissé avec un vide boo xamante ni pour pour kenn mënatu koo combler mais comme yàlla suñu borom moom moo sañ lépp mooy maye mooy jël. donc suñu mayee dañuy wax su ñuy jëlee it dañuy waat wax alhamdulilah li nga xamante ni moo ñu fi desee mooy di ko ñaanal donc ñu ngi koy ñaanal yàlla te yaakaar gi ñu am ci moom yàlla bu yaakaar tas yéen it ñu di jaajëfal bu baax a baax bu rafet ngeen def. jërëjëf euh, jërëjëf Moussa jërëjëf Yoro ñu ngi leen koy jaalewaat bu baax comme ni mu ko waxee xel mën na dal ndax euh, jour bi nga xam ne yàlla suñu borom moom na ko guddik aljuma alxames jàpp aljuma ñu koy ñaan laat bu baax yàlla yërëm ko taxaare ko aljanna mu nekkoon alburaax ak tumaani fii ci Bambey ba koy jërë ngeen jëf. Bonjour chers professeurs, bonjour chers camarades. Un réel